aleykum wa rahmatullah lundi 17 juin 2019 ñu ñëw ak ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag dafa mel ni li olof yi wax lu dafa waxu lu aay di njàmbat li amoon samedi ca arène national tey ñépp ca la ñu xëy moo xam sunu làmb la la tribune les échos source a leewtoo point net leewtoo tv Bajalit TV maanaam daal tey moom ku nekk rek ba nga xëyee am na tur woo tudde combat bii nga xam ne moo fi amoon samedi te lig Nicolay tëggoon ko bu nu buñ ca jëkkee nag fii nga xam ne mooy sunu làmb yëglikaay ba moom mu nga nuy wax kii nga xam ne nii day moo di rëg-rëg la mu def giri de bi daal dafa jàpp ne day jàppal lii nga xam ne nii day mooy dënnu ko daal moo waaj ci kaw giri de rëg-rëg day wan na giri lu méttee méttee méttee méttee parce que nag bëreloo na ko daan ko jël bu rëy rëy moo tax sunu làmb ne na day malgré maanaam donte giri am na téeméeri kilo ak juróom fukk yëglikaay bi ay koy wax de terewu koo gis lii nga xam ne moo di safara maanaam daal lu méttee métti la ko rëg-rëg tegal yëglikaay bi moo xëy ñëw di ca wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay ba ñëw na ca maanaam daal combat ba na mu demee ak na mu jeexe jël ba nga xam ne nii daan nañ ko ko ku nekk nag ñëw nga wax ca bu dee Omes Diagne la moom mu ngi cay joxe lii nga xam ne moo di xalaatam ca sit ba na mu demee ak la nga xam ne moo ko yóbbee Gris daa jàpp ne day moom compétition manqué le na ko lool kii nga xam ne ni nag moo di Sidi Diop moom mooy coach su kii nga xam ne mooy rëg moom la muy xam le day nee na force wala wàllum physique la ak technique nee boo xoolee moo def différence bi maanaam daal force ak technique moo def li nga xam ne mooy différence bi soose moom mooy coach su Gris mu ngay wax erreur ya nga xam ne moom la Gris def ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mu mel ni kii daal bés boobu moom taroon na lool ba yegg ca waaye ba tey nag kum combat booba dañ cay continuer ndax nag laa tribune moom la mu gis mooy kii nga xam ne nii day moo di rëg-rëg dafa piécé gris maanaam daal pièce la ko tàndar mu dugg ca mu daan ko jël bu rëy rëy rëy laa tribune loolu la xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne tamit wala beneen yëglikaay muy yëglikaay bii nga xam ne ni day moo di lee ko moom it ñëw na nee na tey jàpp leen rëg-rëg moom phénoménal maanaam daal la ko tudde nee nag ñàkk daanu nga giri de nekkee woon rëg-rëg taxawal na ko stoppé na ko jox ko premier defetam loolu su yëglikaay bii di leese ko moo xëy tey dina ko wax beneen yëglikaay muy sursu a moom tamit ñëw na de mu ngay wax nee na nag léegi day li leer ba leer rëg-rëg moom fëg na ñii nga xam ne nag mooy buntu mag ña wala VIP nañu ko gestu moo tax nag rëg-rëg mu ngay wax nee na day na leer man daal li ma xam ba xam ko mooy laajuma kenn waaye ku mu ci mën a doon boo ñëwee dañuy bëre ndax nag làmb ja daa jeex a jeex rek sunu làmb na na ko laaj nee na bu fekkee amaa pare na day na jël léegi ma taxawal digganteem ak rëg-rëg rëg-rëg nag nee na muy Ama ak Sa comme ci mën a doon laajuma la man daal maa ngi ci làmb ji di bëre li ma xam daal ñun ñëpp ay génération lañ te dañu ñëw ñu jàmmaarloo ñu ne ko waa rëg-rëg combat bi noo ko bëree mu ne man ni ma ko bëree daal mooy Gris dañ koo sensibiliser au teg loo ko pied góosam ne na te loolu xamuñu ne moo doon li ma gën a arrangé ndax nag dañoo xalaatoon ne su ko defee dóor ma day yomb ci moom te ne na loolu bi mu ko defee dafa gën a neex ci man rëg-rëg ay wax ñu ne ko sa digganteeg Yaxya mu ne Yaxya day sama mag la sama kilifa la te wax dëgg yàlla jàppale na ma ci ay conseils yu baax a baax a baax wax na ma daal fi ma war a jaar ak fi may teg sama tànk yëglikaay bi moo xëy di ca wax waaye waxi diggante mag ama moom kii di Jules tontu na leen de Jules ne na moom loolu du ca wax ndax xamal muy bañam may leen bës moo tax Jules Baldé na waxu ca tey suba waxi noppi ndax nag bës la leen di bañ a may ñeneen ñoo xam ne moom yëglikaay bi di suul soi nee na ñoom seenam combat moom saful suukar saful xorom niil la def muy diggante jéen kayre ak Quench te ñoom day fañ leen doon xaare rawatina amateur yi neexoon na lool ci am xaar waaye daal lañ leen mu jàkkal moom saful dara dara kenn mënu koo ko wala nga di ko lekk yëglikaay bi moo xëy di ñu ko wax maanaam daal niil la boo xam ne nii day niil ba foo ko takk daal ci ak mbettaange romb na ko yëglikaay bi moo xëy di ñu ko wax beneen combat boo xam ne tamit amoon na ca bés booba muy diggante caat ak armée mu mel ni kii nag caat bu booy bambara day wan na armée technicité bëre maanaam daal jël ba mu ko daan rëy na lool yëglikaay bi ñëw na di ñu ko wax ba tey boo demee ca Leewtoo TV da nga fay fekk komba ba na mu déroulé ak na mu demee beneen combat boo xam ne moom démb ci dimanche ji la amoon gaaw lool ba foo ko takk weesu na ko 20 secondes booy bawal daal dal daan kii nga xam ne moo di marle moo tax ca Lutte TV ñu ngi ñuy xamal ne day jël ba ndax leer na wala leerul loolooy laaj ba waaye loo ca mën a dégg daal combat ba moom gaawaay ga foo ko takk weesu na ko waaye dañ fay jóge nag dem léegi ca làmbi simple ja Adrien Senghor démb day yëngu woon na jax sa fa tegoon un million mu mel ni ki nag final ba day ku ko mujj jël moo di kii nga xam ne nii dey moo di libidoor bu Grand Yoff moom daal moom moo daan kii nga xam ne mooy Ibou Senghor loolu moo fa amoon démb mu nga ca Leewtoo point net waaye ba tey ca Leewtoo point net itam dañ fay dem rek mu mel ni ki nag drapeau sur le table tànnum mbër ya moom wala tànnum équipe ba jeex na région de Thiès ñu ngi ñuy xam ne day boo bëggee dégg-dëgg tànn nañ ba pare 66 kilos Moussa Faye la 76 kilos ak ki nga xam ne ni moom mooy Mamadou Diame Sarr waaye 86 kilos ba Dibokor Sañ la ba tey 100 kilo ba Selemele la maanaam Mamadou Moustapha Sène plus de 100 kilos maanaam 120 kilos ba kii nga xam ne mooy Abdoulaye Wila Ndoy la ñu koy wax Libidor bu Grand Yoff loolu mooy région de Thiès bu ñu demee Kaolack nag seen 66 kilos kii nga xam ne moo di Ngor Faye la 76 kilos ba Pape Ndiaye 86 kilos Abdou Assef Abdou Assef loolu lan nu wax région de Thiès ba tey seen 100 kilos daal ordinateur la mooy seen 100 kilos pile de 100 kilos ba nag ki nga xam ne ni day moo di biraan la ba tey Leewtoo point net moo nu koy wax waaye bu ñu demee fii nga xam ne moo di Fatick ñoom it nañ ba pare seen 66 kilos ki nga xam ne mooy Mohamed Ndong 76 kilos ba Ngor Ñaax 86 kilos ba Omar Diouane 100 kilos ba Cheikh Tidiane Niang plus de cent kilos maanaam cent vingt kilos ba Mamadou Bayo ñu naan ko général Malick loolu mooy équipe bu fii nga xam ne nii moo di Fatick waaye dakaar moom am na soppeeku ci seen ab équipe Leewtoo point moo nu koy wax seen cent vingt kilo ba day muy Franc dematul léegi nag nañ Zambala moo ko remplacé moom moo jël place waaye loo ci mën a dégg yàgg maar weekend bii moom tàngoon na jër jër jër waxoon na xat arène nationale Ligue Nicolas yëngaloon na ko ba mu yëngatu loo ci mën a dégg Gris 2 ak rëg-rëg combat bu neex jëlli bu rëy armée ji arme jéen kayre moom moo Quench moom ah nit ña daal wala amateur mbettaanga lañ ca am waaye armée tam day jël ba ñu ko daan ànd naag technicité ak xam-xam booy bawal ak ki nga xam ne mooy marle moom foo takk gaawaay ga weesu na ko vingt secondes kon ñi daan félicitation ñi ñu daan di courage noonu la yàgg mar booy bëre da daan ñu lay daan. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ba waxee ngeen àndal noonu moom ba waxee ngeen àndal si euh, euh, revue de l'arène bi na àndal ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye Coumba di nuyu ñuy suivre ci Leewtoo TV ñëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek. di leen balu àqate di leen baal di ñaan yàlla buur bi moom boo leen ñu jégal di ñaanal ñëpp jàmm di ko saxu si ñoom daal Babacar dafa mel ne weekend bi moom safoon na nit ñi man nañu si làmb diggante euh, arène nationale Adrien Senghor ak Ibamar làmb ji moom jaxoon na trop trop. waaw mu baax a baax a baax parce que tam boo xoolee la ko commencé samedi ba démb si dimanche bi muy arène ba ak Ligue Nicolas yi muy ibamaar Diop ak ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye muy lit simple ba arène Adrien Senghor ak Jax production mel ni ki daal gars yi génn nañu mbër yi bëri nañu ñi war a daanu daanu nañ ñi war a gagné itam gagné nañ tournoi yi. daan bu gën a marqué nag si week bi muy daanu Gris soo gisee sax sunu laamu mi ngi mi ngi titré euh, maanaam dënn bi dannu dënn bi dann si kaw Gris 2 combat boobu nag la moo taxoon mu intéressant ñaari mbër yëpp kenn mosu sa dégg mu yël euh, samedi nag am na ku ne am na koo xam ne mbokkam gànd gànd euh, lënk nañ lëng nañ ko yóbbu nañ ko mu euh, bi nga xam ne moom moo daan jubilé na Babacar waaw loolu mooy sport ah combat bi nag li ci nekkoon enjeu bi mooy loolu nga wax rek maanaam ñoom ñaar kenn mosu cee dégg mu ñël ñi nag dañ dañ doon xaar kumpa gi moo doon kan mooy daanu tey parce que ñaar ñu mosul daanu lañ di ay xale yàlla def tamit ñoom si làmb dama naan li ñu am du sax seen euh, waaw seen liggéey la quoi waaw lu ñu mérito la du sens mais dañ ko mérito parce que boo xoolee bañ débuté seen carrière ba tey ñoom ñaar ci fulla la ñuy ci fayda bu ñu ñëwee nekk ay xale yoo xam ne ñoom ñaar ku ci ne gox yooyu muy Fass ñoo ngemb Gris 2 Caaro yi ngemb rëg-rëg ñu waroon daje yàlla def bi ñu dajee tamit gis nga la fa feeñ rëg-rëg ci niñ ko xamee ak nam daan yëngale ci li simple bi mu ñëwee ci arène nationale noonu la fa nekkee yëngu na macha allah indi na mbooloo bëri na tamit teg bëri bi ci ni ñu yaakaar noonu la ko waroon a bëree yàlla may ko ndam lu set wecc wecc muy xale boo xam ne tey ci làmb dama naan actuellement fi mu nekk nii moom ah, luy xew waaye daal xam naa ne nañ ko bàyyi xel ñii ñu tuddee seen bopp ay VIP wala ña ca topp ak ñooñu nañ ko maanaam nañ ko bàyyi xel parce que tey dama naan bu fekkente ne classe ñoom ay Yékini Senior la ay guy Gui ay Sa Thiès yaa ngi dégg ay Garga Mbossé bu ci mbër yooyu ñooñu ñëpp tey ñoom Forza Reug Reug mu ngi ci seen biir waaw dama naan foofu moom mu nga ca biir bu baax a baax a baax léegi kay la ñuy wax mooy buntu ñoom euh, Gris Bordeaux ñoom Bombardier ñoom Modou Lo ñu mel ni ki noonu quoi mais fi mu nekk nii moom bu bëggee dëgg-dëgg moom waaw mu ngi ci yoon bi bu baax a baax a baax daal macha allah. bàyyi xel boobu sax moo tax euh, Luc Nicolaï bi nga xam ne moo tëggoon euh, galaawu samedi bi nee na pare na pour tëgg Reug Reug ak Ama Balde waaye dafa mel ni waa Falaye Balde nee na ñoom loolu du si daal ndax Jules Balde mi nga xam ne mooy mag si amaa Balde nee na combat boobu du si wax ndax day may keneen kii bës maanaam Reug Reug. waaw Zil moom xam nga mooy kilifa ak te comme ni ñu koy xamee rek euh, bu Luc Nicolaï moom li mu bëgg la wax maanaam moom en tant que promoteur bëgg na tëgg ko wu Ama Baldé ak Reug Reug bu fekkee waa kër Ama d'accord nañu Zil ne moom bu ci waxee dañ la jox promotion waaw loolu xam naa gis-gisam lay doon ak ni mu ko bëggee parce que jàpp na ne xëy na rakkam am na leneen. lu ko gën a intéressé wala leneen yeneen adversaire yoo xam ne ñoo gën ci moom Reug Reug. loolu tam yaakaar na amaa bëri leen na ko ndax ama tey mu ngi ci biir cour cour VIP ya moo xam ñu jël ko la ñu bañ koo jël mee li may wax rek mu ngi ci seen biir rëg-rëg nag fi mu nekk nii li may wax rek fëgg na buntu bi fëgg na buntu bi moom ak lu mën a xew fëgg na waaw li am ba des nag mooy que ni lamb moom li may wax rek mbër bu fekkente ne day kumba faal da ngeen da ngeen di doxal daaw ñu tudd tudd ko nga dem ba benn jour ñi di la di ko tudd ah jàppal ne soreetu la bu la jegeñul tamit bu yegsiwul tamit mais mu ngi ñëw te soreetu la kon nag ak lu ak loo ci mën dégg moo xam muy ren wala muy déw muy déwén ci ama rëg-rëg moom mbër yooyu ne ci kaw bu continuer ci lancé bi mu ne xalaat naa dina bëri ak ñoom Ama Baldé nag fi nekk nii moom tamit yaakaar naa ne mu nga fa mu war a nekk ci làmb mais loo ci mën a dégg même bu dul combat boobu itam Reug Reug war na mën a am yeneen adversaire parce que am na yeneen adversaire potentiel yu nekk ci biir làmb actuellement des toujours ci samedi boobu samedi boobu à part Gris Bordeaux Reug Reug amoon na yeneen ñaari combat yoo xam ni intéressé woon na aussi amateur yi ku si mel ni Quench ak Diène euh, Quench ak Diène Kairé Thiat ak euh, ak euh, Thiat ak ak Armée mais daal bi nga xam ni moom moo décevoir amateur yi mooy combat Diène Kairé ak ak ak Quench combat Diène Kaïré ak aram ak euh, ki nga xam ne mooy Quench moom bu bëggee dégg dëgg moom amateur yi am nañ ci lu leen naqari waaw mais nag sport noonu la day am défaite ak match nul ak victoire xëy na keroog ñoom loolu la ñu ñëwoon bëree ko parce ku ci ne dama naan ci conseil nga bëree ci valeur leen xamee dëgg dëgg dëgg dëgg ci làmb ci xeex ak bëree keroog ñoom ñaar génnewuñ ko parce que loolu nag li koy waral mooy xëy na bis bu màgg la seen ay coach wala seen ay ñi leen yore téelé leen seen bopp mais nag loolu gënalul amateur yi parce que bu ñu sañoon dañuy bëree combat bi mu jeex ñoom nag ku ne am nga loo wax sa moroom a defut li sa moroom a defut le waaye pour man loolu lépp da koy guddal daal werante bi moom jaratu ko li am daal am na nañ dem préparer juwaat rek suñ jógee samedi si euh, Luc dem euh, dimanche bi euh, stade Iba Mar Diop Assane Ndiaye moo fa woote woon diggante Bawal Boy Bawal ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Marley am na nag euh, euh, ar bi joxe na euh, verdict mais coow lu bëri woon na trop. waa arbitre bi moom joxe na verdict mais coow li bëri na ah li ci mën a am nag mooy que ne arbitre c'est le maître du terrain comme ni mu ko waxee dem ci vidéo bi rek moom moo àtte parce que li tax mu àtte na booy bowal ndam marda li ko war mooy ah lamb am na ay yoon ay ay voies recours su ko neexee bu daa d'accordul si li ñu ko àtte am na droit dugal recours am au niveau du CNC ci njàppandalu manatsem su keroogee itam ñu xool ba xam fan la war ne di mu jeg ay bëtam rek mais fii ñuy waxee nii moom drapeau Bamba Fall moom booy bawol yóbbu na ko fa nga xam ne moo di ngor ak bawol parce que loolu moo am dem ca làmb ja muy loo xam ne tamit comme li ñuy wax rek parce que li tax 4 appuis gis naa ñuy wax sax ni 4 appuis dañ ko fi war a jëlee mais pour man 4 appuis ci làmb la bokk ah parce que dafa am lu fi amoon ci combat Ousmane Diop Coly Faye ba tax ñu ne kon léegi 4 appuis bu ko mbër defatee dañuy àtte combat bi des nag mën na am na mu ñëwee noo xam ne bu dikkee du satisfaire amateur yi waaw des nag mu ñëwee noo xam ne tamit dañuy da leen di bett parce que xëy na ni ñu xalaatoon ñu bëree ko noonu moo amul moo tax ñu bëri ne kon lii vraiment daal jaru ko mais sans départ des fois combat yi demee noonu des fois tamit mu nekk 4 appuis boo xam loolu moo am félicité booy bool encouragé ki nga xam ne moom mooy marle bu géejawaay daal. Babacar suñu jógee foofu nañu dem si lutte euh, simple bi euh, dimanche démb euh, Jax moo woote woon foofu defoon fa mise un million ku mujj yóbbu xaalis boobu nag ku nuy wax Libidor la mm-hmm. moom moo gañee Ibou Senghor. waa lutte simple bi jax comme ni ñu koy wax rek moom tamit mu ngi koy promouvoir di ko may doole bu baax a baax parce que démb 1 million Adrien Senghor mu nekkoon lu neex a neex champion yëpp daje fa yàlla def Libidor bu Grand Yoff gagné ko ci kaw Ibou Senghor bu Gana Seras di féliciter Libidor di encourager ki nga xam ne moom mooy Ibou Senghor parce que loolu tamit mooy sport ah, da ngay gagné tey rek suba ñu gagné la léegi ñu des toujours sur le simple bi xam nga drapeau chef de l'état bi léegi mu egsi pratiquement deux semaines moo si des gars yi nag boucle nañu présélection léegi quatorze régions yëpp yónnee nañu seen liste kii di ñàmbe ñetti régions yi si desoon muy Kaolack euh, Thiès ak Fatick ñoom def nañu seen présélection si week bi Fatick moom am nañu fa pratiquement ñi ñëwoon daaw ñoom noo ñëwaat euh, ñaar wala ñett noo si changé ki ñuy wax général Malika moo fa nekk Omar Diouane ak Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Niang sax d'ailleurs moom mooy capitaine bi. waaw waaw loolu ci mën a dégg daal changement am na ci parce que comme tur yooyu nga fa wax rek am na lu ci soppeeku moom ça veut dire que ak soppeeku am na ci a ah, ko waxee nag tëj jot na moo tax xam naa ñu tëj actuellement fi nekk nii moom kon équipe yi ku ne tànn nga ñi na Thiès tànn na na maanaam daal. Thiès moom Sélé moo fa nekk ak Moussa Faye te pourtant Moussa Faye daaw euh, Fatick la bëreel mais ren dafa ñëw euh, Thiès. waaw moo tax ma ne soppeeku bi am na quoi parce que mbër yi jóge ne fii dem fii kii jóge fii dem fii loolu nag li muy wund mooy que ne rek ku nekk xëy na at bu ne am na luy tax. fooy teg say mbir ba tax nga ah, xam naa ne drapeau résultat daal boo bëggee dëgg-dëgg moom ren xalaat naa seere woon na daaw mais ren du gën a seere loo gis ci ordinateur bi nekk Kaolack. waaw moo tax ma ne dina gën a seer parce que ordinateur actuellement keroog fekk naa ko lul seeseen mais ci forme la nekk wax yàlla actuellement macha allah mu ngi ci forme bu wër a wër a wër parce que gis naa keroog mu bëree faak salébale bu metti te su ma jumul fan yooyu am na tournoi yu bëri yu mu jël ci côté yooyu boo ko fekkee Fatick nga dem fee fekk salemele Thiès fekk euh, général Malick ak euh, fale xam ne moom mooy euh, Fatick te Tidiane nekk fa tamit ak yeneen champion yi ci yeneen région ne ren moom drapeau civilité day kumba euh, dara du yomb te doo fàtte Dakar mi ko jëloon daaw ren day bëgg a défendre di tout titre am si Dakar boobu sax la ñuy ne kii nga xam ne mooy Franck muy tiré si 120 kilos nekk ki euh, nekk capitaine équipe bi moom finalement si ay information yu ñu am du bëreel euh, Dakar ndax plus de poids maanaam poids bu ñu ko laaj dafa bëri te nee na fii ak drapeau bi du mun a wàññi donc ni ngi wax ni ne Zambala finalement moo koy remplacé waa franc maanaam poids bi ñu ko laaj maanaam bi ñu soxla ci moom moom bi mu yor ko ëpp daal voilà loolu moo tax ba mënul mënul mënul dem quoi te mbir mi daa am ay règle loolu nag c'est normal parce que bu fekkente ne drapeau chef de l'état moom dafa am ay régle ci ay nombre de kilo yu ñuy soxla ci yow boo ko ëppalee moom doo mën a bokk loolu xel nangu na ko comme mu bañ bokk ndax loolu loolu raison la Zambala mi jël place tamit yaakaar naa war na ko mën a matale parce que li tax mooy moom lit simple tamit bokk na ci mbër yi nga xam ne ni ci lit simple vraiment wane nañ ci seen bopp bu baax a baax kon Dakar tamit dama naan seen 120 kilos boobu pour man baax na moo tax ma gëm ne daal mbir moomu ren moom waa xëccoo dana naa tar quoi drapeau sur dina tar trop trop trop Euh, merci Babacar si kàddu yooyu leen di tàggoo mais balaa boobu may nuyu Dadi Gueye nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom Mohamed di nuyu Astan di nuyu depuis Italie chéri Khadija Diallo di nuyu aussi Zé Zé moom mooy Bombardier mi nga xam ne moom si si région am la ñuy si localité am la ñuy recevoir drapeau chef de l'état di ko nuyu lu baax lu bëree bëri bëri Babacar. waaw loolu yoon laa nuyu waa Mbour yëpp waa di jël nuyu di ko teg ci loxo Bombardier parce que moo dëkk ci région bi foofu comme un grand champion des ñaar yoon di ko nuyu di nuyu tamit mbër yi fa nekk yëpp. xam nga ñoom pakala ñoom ñëpp ñu ngi foofu ay assurance ay champion lañ nekk Mbour xam nga Jordan bu Mbour tamit duñ ko fàtte mais di nuyu tamit bi nga xam ne ni moom mu ngi foofu nekk promoteur boo gis Mbagnick Sène tamit ci foofu la dëkk kon daal région boobu yëpp wala boog sax département de Mbour bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ak région de Thiès bi nga xam ne a nekk nga a ne ñoom Mamadou xam nga ak sama benn xarit mu ngi Italie fan yi xaadim xaadim Balla gay manque yu koy bu baax a baax sànq léegi ñu doon déggante di nuyu ñuy suivre ñëpp waaye di nuyu tamit nga xam ne mooy Kalisia sa dëkk depuis Colobane gis nga tey li ma génn ci Paris PG moom moo ma solal PG bi démb bi dem reportage mais di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Aliou bu yankaaw marché Thiaroy keroog bi may dem samedi tamit estat moom moo ma solal li ma soloon ci semis ak yëpp di nuyu sama benn doomu nday tamit ma ci am happy nekk ba kolobaan moom tamit di jàpp ci côté dàll yi kon daal ñëpp ñi safoo Babacar daal di ko jox muy solu du ma leen fàtte maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm wasalaam